coow li ma yàlla boole yàlla ma ko sunu boroom seddal ba mu ngi ma féete ma ginnaaw lu nar a yàlla na ko topp man moom maa xëy fii si bureau comme tey sama angine bi moo ma daane man mooy sama feebar man maa toog fii ba ndékki ba mu naaj maa ànd ak sama jaat mi dem ba dispensaire Pape Diallo bi ma àggee dagg ticket toog bi ma rangé ba dugg mu ne ma mère Ndeye loolu dal ma ne ko man dama angime mu ne ma waa kaay ma xool ma yéeg mu ubbi gémmiñ bi mu xool ko ne ma da nga kay wàccal ma wàcc mu ne léegi mère la yow ci looy yëngu xanaa ma ne ko man damay jaay sama caatin sax moo kon day jaay mu ne ko fu muy jaay mu ne ko ci buntu kër gi fu muy duggee mu ne ko marché Thiaroye bu xëyee marché poisson loolu lañu fa wax mu ne ma waa ange bi la léegi man dama lay bindal kayit ñu yóbbu ñu defal la fa bu subaa buñ ko xoolee après nga ñibbisi daal ci noonu la ma waxee man ko ah, mu ne ma waaw ma ne ko ah, baax na noonu benn xale bu góor ñëw daal di ma ni mère am takkal masque bi nga sàngoo rek sa nga topp ma ba ci bâtiment bi ma jóg jël masque bi topp ko ba ci bâtiment ma toog toog fa tuuti toog fa tuuti benn xale bu jigéen ñëw déguisé wu noonu daal di ma ni mère nañu nuyoonte te pare mu ne ma dama laa bëgg a defal test fii ci sa bakkan ma ne aja mu defal ma test bi daal di génne daal di ma ni chauffeur bi da lay yóbbu Ravin ak ñaari xale yu góor yi nekkoon foofu waaw ci clinique bu Pape Diallo bii la man dañ man dañ ne si duudu laa demoon man ci Pape Diallo laay fajoo ñu kër gi fii lay metti ci Pape Diallo ngeen ci Moussa léegi biñu demee Ravin ma yendu fa noonu ci àjjuma ji fanaan ba seddi samedi yendu ba samedi ci ay 20 heures médecin bi woo ma ne ma mel la ñu noyoon te mu ne ma man maa la doon suivre hôpital Pape Diallo ma ne ko ah mu ne ma naka sa yaram ma ne ko sant yàlla maa ngi am jàmm angine bi tane na ma ne ko sedd na kay. léegi man ndax numéro téléphone xale yi man nga ma ko jox ma ne ko man de gëruma numéro léegi nii mën naa mën ko xawma ci numéro kenn mu ne ma mën naa fee yónnee kenn ndax mën nga ma koo abal sa téléphone mu génne numéro bi ma ne ko maa ngi ni tëdd di la xaar. mu woote waat ñooñu waat sax ñu ngi jàkkaarloog ma ñaari xale yu góor yi ñu daal di waaxu ñëw ne ma mère Ndella téléphone man leen am ñu daan ma fii comme que fële toog man ko laay mën ngeen maa jege mu yóotu ma yóotu mu ma taxaw man bougé wu ma mu fexe ba jël téléphone bi xool bés ne ma ah numéro Ousmane Ndiaye ma ne ko waa mu woo Ousmane Ousmane ça va mu ne ko sa waa mu ne ko waa service d'hygiène ñooy waxanteeg yow Ousmane ni leen waa mu ne ko am sa papa mu ne ko mi ngi ci biir mu ne ko dama bëggoon nga wax ko mu jóg parce que heure bi moo sutura waa service d'hygiène ñi ki indi ambulance bi bu ñu ñëwee dañuy jël waa kër gi ñëppay dem ñu quarante ji leen fële ngor jaaraama du dara nag dañ leen defal ay test rek après ñu tëj kër gi dara du fi dugg ñu dem buñ demee ñu xool leen après ñu dellu siwaat Ousmane ne leen amul benn problème ci la ñëw fëggee nii paa bi wax ko ko paa bi daal ne ah kon de xanaa la ma gisoon Medina mooy bëgg a ñëw ci kër gi daal di yee doomam ji téye leen ñoom ñëpp ñu génn seeni saak defar toog fii di leen xaar waat Ousmane ne ko Ousmane la ñuy déglu mun na man yéen laay déglu ñoo ngi toog di xaar ñu dawal oto bi ñëw nii la ñu waa kër gi tëj gi dem yóbbu leen ngor jaaraam. parce que dama bokk si ñi nga xamante ni dañ ñu quarantaine noonu ci hôtel bi mais hôtel bi ñaar fukki fan yi ñu fa nekk yëpp ñam bu am suukar duggul suñu gémmiñ ñam bu tàng duggul suñu gémmiñ waaw te ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu lekk yi muy waa Croix Rouge dañ ñuy daw comme ñuy daw dëmm bu ñu ñëwee dañuy fëgg bunt bi balaa ngay ubbi jël nañ lekk bi teg ko ci suuf dem nañ seen yoon biñ fa defee 14 jours ñu defal ñu test ñu négatif ñu war a génn ñibbi docteur bi ne ñu léegi dangeen di xaar ñu defal leen dernier test confirmation comme ngi ngeen mën préfet mun leen a fayal ngeen mën a ñibbi démb bi ñuy bàyyi dafa xëy wooñu bi ñu ñu wooyee ne ñu mun ngeen a dem ñu ne ko ñun famille lañ oto ngeen gaare andi ñu fii kon oto ngeen war a gaar gaare ñu pour ñu ñibbiwaat ñu ne ñu kat wàllu ñibbi bi moom préfet bi moo yor oto beeg yooyu te mënu mu leen assuré kañ la leen koy andil affaire yooyu yéen xool leen te ñoo mujj génn ñun daal di jël taxi arrivé payé. man ba ba may ñibbi si ci hôpital Dalal Jàmm Ravin man dara méttiwu ma man sama angine bi dafa yàgg man su ma naanee antibiotique mu sedd sama caat mi sax moo ma sonal ni ma nañ dem démb yaa ngi tëdd siburu lekkoo yaay donc moom lu tax mu def loolu sax bañ ma dem marché. bañ ma gont ji moo tax mu taxaw ma ne ma nañ dem sama goro bi ne ma bàjjen demal rek bu la Moussa bindalee garab Ousmane dina ko jënd mu ne ma lum la bindal ma jënd ko lii moo ma yóbbu nekkate booba bu sa bopp méttee boo demee ñu quarante la problème bi di la demee bi ñëwee yóbbu ma dalal jàmm comme noonu guddi gi moo tëdd ba set ñëw defal ma pré xool sama kii xol bi ñu defal ma ko jël deret jox ma benn comprimé ma naan tëdd bi ba setaatee bi ñëwee xol bi lañu xool jox ma benn doom benn vitamine C suba bu ñu laqaatee ñaari fan ñëw deret jël deret bi xoolaat xol bi xool nañ ko ñeenti yoon ci seen yooyu noonu ba mu mat juróom-ñetti fan ñu tafal ma benn kayit bi ne ma mère Ndella ma naa mu ne ma pré bi jeex na hmm? naanatu naanatuma fa benn garab léegi li des buñ toogee ñaari fan ba ñett ñëw jël deret xool tension bi dugal ko fi ci baaraam xool sawa xale bu góor bi comme lii xool-xool bi taxaw bés bés bés génne kayit bi ma ne ko ah, kayit bi mu xool xool xool ma ne ko kayit bi nu mu demee mbaa baax na mu ne ma ah, man de wax dëgg yàlla sant yàlla laa gis ndax yow amoo cancer amoo jabet amoo estomac xool bi daal mu ngi nii macha dara nekku ci ñeenti yooyu ñu def yëpp ñoo ko génne seen bopp ñoo wax may dégg sant yàlla bu defee ñëw bu làqee ñaari fan ñëw jël dara defaat kii ba noonu laa toogee benn ngoon daal ba julli tisbaar ni ba pare di pare tëdd dallu mu daal di ne ma meendeelu ci suba tey ñu ngi lay woo sa téléphone ma ne ko xam naa jokkoo yi ma nit ñi woo rek moo tax dégguma leen ñu ne médecin bi nee na nga pare ñëw ñu yóbbu la nga ñibbi ma ne loolu moom neex na daal di génn ñaari yére dong laa fa yóbbu topp ci seen ginnaaw ñuy dem di dem di dem ba benn saal bi ñu waxtaanee foofu ba pare ma ne waa ñii fu ñu jëm ñu ne ñi Touba Mbacke lañ jëm ñi ci des euh, golf fii lañ jëm Parcelles Dior mel man maa ci jëm Géejawaay te oto amul benn oto ambulance moo nekk foofu te am na ñu mu yóbbu njëm tuubaa ñu ne leen dañ leen di delloowaat ci benn hôtel ngeen fanaan fa ba suba comme génn ngeen ba pare te heure bi mën leen dem Touba bu subaa ñu yóbbu nee leen oto ma laaj ñee ñu ne passé nañ jëm ma ne benn médecin yow xam nga dara jaamu dafa rëy du ngeen ma dimbali fexe ba génneel ma yoon bi ba ni ma rek talibaa ngi nii man ma jël oto dem boobu benn 100 francs laa sa hôpital ba te ci sama kol laa fas sax fa ko wacc yoruma dara de mais man géejawaay gii dinaa ñibbisi mën na maa dox ñibbisi su ma génnee sax oto bu ma daf dina dinaa ko am far ma yem ci sama benn mu seen ma ni di reer Souleymane ne waa maam foo ma ko ma ne bàyyi nañ ma damay ñibbi déedéet wax dëgg yàlla ne nañ ma ñun ci yoon ñoo la war a yóbbu mais oto amu fa ñu jëm Touba ñi ngi leen di delloowaat ca hôtel ya ñi jëm parcelle ñi ngi xaar fii ba ñu ndogu ba pare bu oto amee ñu yóbbu leen te man comme nee nañ ma ñibbil ci jàmm ñaanuma yàlla fanaan ci hôpital bi jaral na maa dox ñibbisi bi ma yemee ci sama sët bi moo ma jox 5000 ne maam am nga sens daal di ma jox 5000 ne ma génnal nga jël taxi nga ñibbi moom ci oto bi sax la duggaale ba ca bunt bu mag ba mu jël exciteur am ñibbi gàddaay ma ñibbisi. Eh, man nag lu ma gën a metti si affaire bi sama deru yaay bi ñu wër di yàq man loolu rek moom moo ma gën a metti quoi te maire bi dara dalu ko lu dul enzyme c'est nit ñi si boppam ñoo ñoo ñoo war a bàyyi suñ suñu déggee teel rek ni damm na. comprendre ñoom xamuñu affaire yi nu nu mu demee kenn ku nekk yor sa làmmiñ di wax loolu noonu baaxul xom ay bàjjenu gox ak yu yu kenn xamul ñoom xamuñu affaire yi nu mu demee comprendre kenn ku nekk yor sa làmmiñ rek di wax fee nag moom niñ fa nekkee woon moom wax dëgg yàlla metti na torop gars yi dañu doon daw comme comme xaj da ngay soxla dara sax woo leen ñooy la waa ñoo ngi ñëw après dem nañ dootoo leen gisaat seen lekk yi waxaalew ma lekk yi day sedd guy comme comme glace imagine nga woor xëy woor suba ba ngoon wara a naan ndox bu tàng sax mu mu munoo ko faa am bu baax ndox biñ lay indil du tàng déjà comprendre seen ceeb yi moom wax moo ma ko. nekkewuñ fa benn condition bu baax si biir hôtel ba. sama jabaru grand frère bi ñu ngi foofu bàyyi ko fa ñun moom bokk na si ñu nga xamante ni dafa defal nañ ko dernier test bi mais dañ koo waat ne ko test bi ñu la defal normal il faut que la test te loolu noonu du yoon loolu seen liggéey la waaw man loolu moom li nga xamante ni moo fa métti nekkewuñ fa benn condition bu ay lekk yu sedd guy dugg nañ fa ñaar fukki fan yoo xamante ni ñam bu tàng duggul sama gémmiñ ñam bu sedd duggul sama gémmiñ xadd bi bu ñu la andilee mburu tañ lay jox kaas ne la robinet bi ngay ubbi nga root ci loo xaddee loolu neexul ci xol dafa metti ba si kanamu yàlla ñaar fukki fan maa ngi ko gaare sama oto bi mi ngi si buntu kër gi te oto bi doon liggéey chaque jour day xëy di liggéey xaalis ñaar fukki fan oto bi bougéwul mi ngi taxaw benn place ñett test lañ ma defal lépp ma négatif waaw man loolu moom li nga xamante ni man moo metti en tout cas daal lii moom moom baaxul baaxul te nag dafa mel ni ñoom seen jëm bopp bëgguñu jeexal feebar bi parce que nit boo ko defalee test deux fois mu négatif 14 jours da nga ko war a bàyyi mu ñibbi benn instant bi ñu fippoo na ñun famille bi ñu ñëpp dañuy génn dem ma envoyé médecin docteur bi si la ñuy soog a envoyé message ne ñu kat def leen ndànk ñun li ñu war a def lépp def nañ ko ba pare préfet moom moo war a fay pour ngeen génn kon ñu xam ne ñun ay problème fay hôtel ak yooyu mooñ fa bàyyi mais du ay problème test ak yooyu dernier test confirmation bi yëpp lay la rek. ak fi ma nii ni méttee nii médias yi nekk ci ginnaaw gi lu nekk ñu wax ko ci koñ bi yàq sama liggéey tegale samay bagage tasaare ma nag ci àdduna bi koo wax mu ne Ndella dafa corona dafa corona métti na tur bi dafa métti ñu ne man ci Doudou Diop mi laa demoon hôpital Doudou mosuma fa taxaw. duudu siti lay faj ak ko amul doom te loolu yëpp macha allah dara daluma ci bi mu nekkee fi mosuma fa dem bi mu nekkee fi mosuma fa dem man Pape jàll bi foofu la ñuy dem ci musaa parce que Moussa daanaka mook sama xale yi ñooy ànd bu sa bopp mi tee sax bu la neexee nga dem lu Moussa jëndal nga jënd ñu ne man damay jaay restaurant musuma restaurant ñu ne dama yore mbootaay téeméeri nit téeméeri junni damaa am bës su may indi sama bagage bi oto laay gaare ànd kenn balaa mi di baa koñ bi jënd ko mu jeex ma dellu caaro indiwaat oto su fajaree ñetti paani jën laay wàcce midi une heure mu jeex ma préparé waat gont maire bi lii maire bi lii daal di ñëw jël waa koñ bi yëpp fii rasmtalla jaar fi wax ñu jël koñ bi yóbbu ñu ne ku daan fréquenté fi koñ bi moom wàq na andim zaat ñëpp ma bëgg wax dëgg yàlla bu ñu yeewoo ñoo ngi ñëw si man ba ñu demee suñu borom leeral na lépp na ñu demee woon ni la dellu see ñu ne dara kenn ku nekk feex toog hôpital ba ku ma fa ko nii ñu yaakaar ni maa nga ne laaj ñii bëgg lu ñu xam ak téléphone yi di ma bëgg a rey normal laay waxante yow parce que man dara méttiwu ma gi ma fanaan si guddi gi mënoon nañ ma fee rey dama fa fekk nag dëkkandoo yu baax fekk naa ñu raxas kër gi bale mel ni yàlla da leen ne tey laa ñibbisi dara manqué wut ci kër gi ma ñëw dugg ubbitoo jàpp ci yàlla ñu ñuy di wax a yow ñu nag ñu nag doom ñooy ànd di liggéey te dañoo commencé woon a daw barki yàlla dañoo commencé woon a daw ñun ñuy di wax ak ñu nag doom ñooy ànd di liggéey am na yenn yoo xam ne dafa doxul di ko teg si deru nit ki comprendre nga maire bi daa yor liggéeyam di liggéey maire bi day sonn maire bi day yeewu 4 heures du matin di dem marché poisson bu ñëwee bu jaayee ba ngoon demaat caaro yi maire bi enzyme moo ko jàpp dara mosu ko jàpp loolu enzyme nit na booy teg si deram na nga koy teg loo xamante ne carrément moo nekk ci moom yàq deru nit ki amul benn sens ma mi di wax yow léegi yàlla xam na ni sama sama jàmbaar ak nga ma ci génne mais dama doon génn nii ñu ni ñu naan ma ay nii kii mook dooma may ànd ak moo kii la man leen kon bu ko dalee damay dal comprendre fii nag moom loo gis si àdduna rek suñu borom dina ko mës a jeexal loolay loolay mooy mooy mooy loolay affaire bi nit tamit dafa feebar loolu amul benn sens nga jël leen yóbbu leen feenee naan ak leen di quarantaine joxoo leen lekk bu baax ba ñuy ñëw joxoo leen paax joxoo leen dara yàq seen der loolu amul benn sens